marché bi euh, amna lu bari luma ci jotta xam bu yagg ndax amone nañ fi ma gis ne bi fi na fi lol lol lol lol waye dinañu ci ci ci ci man bëggon na ci turu coalition bi nga and tay euh, suñu responsable communication

waa Thiaroye laalul rek wa Dakar Waye lal na sous région bi yëpp ndax euh, marché bi ngeen gis ni euh fukki junnik ñaari nit ñu ngi fi yor place Boko xayma muy juróom ben fukki junniy nit ño xamne ne ñu ngi am ay emploi direct ñu teg ci lu jege téeméeri junniy nit ñoo xam ne ñoo ci emploi direct ak emploi indirect boo ci boolee nag famille yi nga xam ne ñooñu la ñuy dundal foog naa euh, na juróomi téeméeri junniy nit yuy dund ci marché bi kon suñu ñew fi du rawati na bi nga xamné président de la république ci bopam mu ngi wax PAP 2 ci PS euh, PS2 bi ñu ngi jóge ci Covid mu nekk situation bu bu bu doy waar boo xam ne war nañ ko suñu bi ah ñetti intervention la ci bëgg def ben bi maa ngi ciy jublu président de la république ci bopam ci turu coalition bi ci turu ñep ñi fi ñi nek ci coalition bi rawatina Ousmane Sonko mi nga xamné président Ousmane Sonko mi nga xamné moy suñu porte drapeau ci candidature 2019 bi waye nek itam ah, suñu natango ci kuréel bi euh, euh, conseil national des leaders bu bu coalition président de la république wax Modi. la en grande partie ci walu commerce gis ngeen bi wax dëgg projet bu day nonu nga xamne jeegina 1000 milliards buñ koy doxal amna na li ñuy wooye étude d'impact yu ñu wara def et étude d'impact environnement buñ koy def dañ ci xol fi yoni ndox yi di jaar dañ ci xol lépp li nga xamne mën na ci indi galancor ci walu économie te gis nañu ne tay taw gi bi mu indé bi mu ñëwé terre bi bari na li fi indi ci jafe-jafe ben ndox bi circulé ñaar mu ngi fii am itam ay problème électricité xëy xawma ndax fi amna fi wayé amna ci place yo xamné ne na fi nit kon mais laaj président de la république désormais comme dafa bëgg légui euh, dafa def lo xamné dafa jaar ci yoon da fay nek lo xamné gis naa dégg mu nan day bëgg ay réforme réforme yi bokk na ci li li ñu ciy laaj mu mu def en sorte que état bi administration bi am démarche bo xamné ne jaar na yoon tey bu étude d'impact yi jaaroon yoon li ñu gis ci terre bi waru fi wona a am donc première euh, question mooy problème économique bi Tay problème économique bi li fi indi problème li yok problème économique Ben bi accès bi gis ngeen accès véhicule poids lourd Ben accès poids lourd mo am muy ben entrée di ben sortie muy danger bu mat seuk ci ci nak marché bo xamné sous région bi yëpp lay distribuer muy problème de sécurité un gis ngeen ni ñu jaxasoog nit ñi di reculer di avancer lu ne mu na ci xew Ben ñaar problème toujours de sécurité problème d'éclairage euh, éclairage problème éclairage c'est un vrai problème de sécurité maintenant problème hygiène may ne Sénégal war nañ ci poto poto bi fi am fi am le nombre de de de de euh, boutiques yi nga dañu ci ñu ñu ne

dem leen ci toilette yi ñaari ñaari buntu toilette ngeen di gis ñaari buntu toilette ci biir xaw ma ñaata euh, euh, euh, WC ñoo fay nekk ñemewuma sax dugg foofu waaye est-ce que xam ngeen ne fii amu fi ndox amul ndox foo xam ne y a douze mille douze mille travailleurs ak ñi nga xam ne ñu ngi jóge ci biti di ñëw est-ce que mun nañu nangu nit nii di jaay lekk di dem ci place boo xam ne da ngay ut pot pour li ngay raxasoo est-ce que loolu mun nañ ko nangu président de la république ñu ngi lay laaj ñu ngi lay ñaan sax pour suñu askan bala ngay wax ay 000 milliards ngay duggal ci relance économique bi taxawal pour defaraat li nga xamné Sénégal yépp la laal ak sous-région bi.